gisee am na batiment yoo xam ne bi ngeen fi ñëwee la semaine passée état bi ngeen ko fekkoon état bi ngeen ko fekkee tey gis ngeen ne am na avancement euh, six bâtiments moo nekk en cours de réalisation moom lañ nekk instant yi lañ moom la ñu démarré ba mu avancé yeneen yi aussi mi ngi nekk au niveau des fondations di dem donc pour euh, bâtiment côté bi ñu ngi am majalis grand A mooy batiment bu mag bi ak majalis petit A mooy bâtiment bu ndaw bi bâtiment bi ndaw bi ñu ngi toll ci niveau poteau yi avancement des travaux poteau élévation yi jeex na à 100 pour cent ñu ngi démarré coffrage des poutres bu ñu demee ci Madialis Grand A mooy bâtiment bu mag bi boobu pratiquement c'est le double de ce bâtiment la moom moo représenté bâtiment bi deux fois donc boobu aussi euh, def nañu fondation yi ba mu jeex poteau élévation yi jeex na à 100 pour cent plancher au RDC bi aussi on est à 80 pour cent donc benn partie bu ndaw moo ci des au milieu donc cette euh, semaine prochaine on le termine en même temps aussi démarré nañ poto étage yi bu ñu demee si beneen bâtiment bi si topp mooy euh, institut islamique aile gauche boobu aussi fondation yi quasiment jeex na donc euh, ñu ngi noonu yëkkati case de censeur bi aujourd'hui à partir de lundi ñu démarré aussi élévation bi deux bâtiments yi ci gën a avancé nag mooy euh, aile gauche ak milieu boobu pratiquement bu ñu xoolee ñu ngi ci poteau deuxième plancher au premier étage benn bâtiment bi coulé ne ko à 100 pour cent benn bi coulé ne ko à pour cent donc ñu ngi yëkkati aussi les poteaux du deuxième donc ça avance on peut dire aussi côté logistique ça va vraiment ces temps-ci on se plaint pas logistique bi boo dee xool am nañ fi deux ppm am nañ fi ay manitou vraiment am nañ matériel boo xam te ne permettre nañu ñu mën def liggéey bi à temps en fi mettre place bi aussi man maa nekk ingénieur de suivi bi donc am na conducteur bu fa nekk mais man maa koy secondé démarré nañ ko tey jii ñu ngi commencé di gas fouille en puits yi parce que ñu defoon fouille en masse pour 1 mètre 50 donc fouille yi commencé nañ ko tey semaine prochaine incha allah dinañ démarrer sax coulage des semelles. waaye avant de démarrer le projet boo dee xool toog nañ 3 à 4 mois yoo xam ñu ngi nekkoon ci études géotechnicien ñëw nañ xool nañ suuf bi donc lép lu ñu waroon a xool état bi ñu waroon a franchir yëpp def nañ ko avant ñuy toll fii. aussi côté technique aussi on n'a pas de problème am nañ assez de conducteurs am nañ ay directeurs des travaux am nañ coordonnateur des ñoo xam te am nañ expérience. ñu ngi ànd ak ñun coiffé ñu ànd liggéey liggéey bi macha allah on n'a pas encore de problème. parfois on travaille la nuit yenn saa yi liggéey guddi gi parce que parfois nga démarrer benn dal boo xamante ni mënuñu ko dagg donc du coup on est obligé heure bu dal bi waree jeex rek heure boobu la ñuy arrêté donc dañuy continuer bu ñu amee yu mag c'est comme ça qu'on fait. waaw travaux yi ñu ngi ko démarré mois de de janvier. mois de janvier la travaux yi carrément démarré mais depuis décembre ñu ngi fi woon nekkoon ci terrain bi. nekkoon aussi def implantation yenn bâtiment yi mais travaux yi moom mi ngi démarré carrément mois de janvier. jël nañ précaution yëpp pour nawet bu ñëwee bañ ñu empêché ñu liggéey côté boobu def na ça fait un mois ñu ngi ciy liggéey donc euh, franchir nañ ci ay pas yu yu yu bari je pense que nawet bi du ñu empêché ñu def suñu liggéey.